di am mbégte ak kontante ci dajewaat ak yéen ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala téere bii nga xamante ni nii li ci nekk lépp jub li ci nekk lépp a baax ndax fa mu bàyyikoo la fa mu bàyyikoo lenn lu manqué nekku fa te mooy yàlla subhaanahu wa taala ñu nekkoon ak yéen ci saar wu am solo muy suuratul isra nga xamante ni nii suñu daje bu njëkk ci saar wi ak bu ñaareel ba ak bu ñetteel ba ba ci tey nga xamante ne ni mooy suñu daje bu mujj ci suuratul isra damay répété di waxaat ñaari aaya yàlla wax ca commencement saar wa ba ca njëkk di inna hadha al qurana yahdi lillati hiya aqwam ak fi yàlla di wax ni wa kulla shay'in fassalnaahu tafsila yàlla nee na alxuraan daal a ngi nii su ngeen ci jàppee raw alquran daal a ngi nii si ngeen ci moyee di ngeen mucc fii ci àdduna mucc ci àllaaxira yàlla niwaat dinaa leen leeralal ba mu leer naññ ci loolu tey insha allahu tabaraka wa taala suñu ay mujj ci saar wi yàlla subhaanahu wa taala ma nga cay wax baada audu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم موكي خولال يالله سبحانه وتعالى جناو بيغا خامتيني ني دغنا سي يين مير لو جيم سي والو در والو اسكان مو دال دي تيري ني فات اي باكن مو تيري ني ري سونيي دوم ndax ragal xiif waaye tamit kazaalika mu tere njaaloo nga dégg ci ni daganal na ay mbir loolu da koy dégg ci aaya yi gis nga yàlla bu teree njaaloo comme ni ma ko waxee woon bi passé moo ñu daganal pour ñu takk jabar moo tere sàcc moo ñu daganal pour ñu liggéey daal ñuy digal ñu doylu digal ñu loo am nga xam ni fa yàlla loo ñàkk nga xam ni yàlla la subhanahu wa taala su ko defee doo bëggee loolu du la yóbbu nga sàcc du la yóbbee nga jël loo xamante ne nii moomuloo ko mu daan ñuy terewaat alali jirim ni bu leen ko lekk mukk bu leen ko lekk de bu leen ko jege bu leen ko laal na ngeen ko dencal jirim ba mu màgg ngeen jël ko ngeen jox ko yàlla daal di waxaan na ngeen di matali kóllëre su ngeen fasantee kóllëre yaag sab xarit yaag sab àndandoo yaag ku mu mënti doon ngeen fasante ay kóllëre na nga ko matale waye kóllëre rig nga ak sa borom tamit kazalika nang ko matale yàlla subhanahu wa taala ba mu génnee ci aaya yoy mu daal wax ni wa awful kayla ida kiltum wazinu bil qistas al mustaqim dhalika xayrun wa ahsanu tawila yàlla nee bu ngeen di peeseeti ma ngeen di nat ma ngeen di meetre ak lu mu mënti don na mat na mat wa wallahi ndeysaan san nee na koy jaay nga koy peeseel mba nga koy natal mba nga koy metrel lu mu buti doon na mat bu ci sacc dara bu lu wara jaay ne kilo ciep mu dem bay waji mat kilo nga am lo ci chomp di dindi xam nga la motax baxul ci bir société day delo ginnaw am rew tay ji duguna ci si bi jënd kilo ciep jaayoo ma kilo bu mat ki duggu jaayoo kilo bu mat kële dugg jaayee ko kilo bu mat yow ci bir saako bi di nga ci bu fekkoon 25 kilo la daanaka yow di nga ko def 30 kilo ndax sàcc yooyu sàcc loolu baaxul ci sa alal daf lay delloo ginnaaw yaa ngi lekk ribaa yaa sa bopp biir safara looloo waral yàlla subhanahu wa taala daan ni lépp lu ngeen di jaay na mat sooy kazalika da ngay jaay dëwlin wala nga jaay pétrole wala lu mu mënti doon na ko ba mu mat même ndox sax boo koy jaay na ko natt ba mu mat ndaxte loolu la la islaam diggal waaye jël pot nóoxal mu daal di dugg ci biir képp ku lay jaay si moom nga koy jox su ko defee bu jàppee ni jox na la kilo ndekete jox na la kilo liibar bu fekkee yaay jaay nga jël pot bi daaj ko ci suuf mu nóox dugg ci biir nga xamante ni di nga jaay kenn mu jàpp ni jaay nga ko kilo fekk ni kilo bi am na lu mu manqué képp ku koy def يالله سبحانه وتعالى بومو تودينا نبغل فيتي أدنى نبغل لا الآخرة أمنا أو خير وخمن تنيني يالله لولا لين بغله بندان جاي بندان ساتش نيوم نيوم تدو المطففون مملا يالله واحتي سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين allahu akbar mbokk yi kon nañu bàyyi xel bu baax ci wàllu jënd ak jaay lépp luy seqal nit ki na mat sëkk nga def sa kéemtalaay kàttan ba mu mat moo tax bu ngeen jàngoon ci suuratul anaam ca anaam ba yàlla waxee ci wàllu jënd ak jaay ba pare dana nag ah, xam naa ah, teguma kenn benn bakkel lu mu manul ah, teguma kenn lu mu manul waaye nag na nga góorlu parce que jënd ak jaay dafa metti jënd ak jaay dafa metti su ko defee yow defal sa kéemtalaay kàttan ba bis bu yot daal ngay fexe ba dara du manqué waaye tamit boo demee ba àq nar a am bu mu nekk ci sa côté yaa dégg yow defal loolu loolu la la islaam digal loolu moom mooy indi jàmm ci biir société bi yàlla daan ni wala taqfu maa laysa laka bihi ilm inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu mas'ula yàlla nee na wala taqfu maa laysa laka bihi ilm yow jullit bi lu sa yoon nekkul bu ci dugg lu sa yoon nekkul bul ci dugg wala tax fu maa laysa laka bihi ilm loo xamul bu ci wax mbokk yi moo yàq kër yi yaa ku ñëw di seede loo xamante ne ni fekkee ko di wax loo xamante ni ni wóoru ko suñ ko laajee yaa fekkee mun déedéet dañ ma nettali yaa gis mu ni déedéet dañ maa nettali walla mu jékki-jékki ni yaakaar naa déedéet wala tax fu maa laysa laka bihi ilmun yàlla nee na lu wóorul bul ko wax loo xamante ne nii leeru la bul ca dugal sa gémmiñ bu ca wax xam nga la moo tax inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaayka kaana anhu masula yàlla subhaanahu wa taala nee na bu yowal xiyaamee sa cër yi benn par benn laay laaj eh, lan moo taxoon nga xool lii lan moo tax nga déglu lii lan moo tax nga dem fii lan moo tax nga laal lii waaw kullu ulaayka kaana anhu masula ciri benn bu ci nekk dinañ ko taxawal di laaj so wedde rek yalla daal di wax loo ciri sangam ya ko jëlon nga bañ loxo daan eh maa ko loxo bi moy wax place sangam ya fa demone yak nga weddi tank wax ni man ma demone ah am lo xamanteni ni neen la ya ko waxoon nga bañ yalla wax lo lamiñ mu daal dikoy wax waaw loolu kon nañ ci bayyi xel bu baakha baakha baakha a yalla subhanahu wa taala loolu la wax mooy li nga xamante ne ni moom la teg ngir xam ni lii buñ ci doxee rek jàmm dina am ci biir kër yi mais wax lu la wóorul def lu la wóorul tant que ñu ngi koy def jàmm du am lan lañ way wax loo xam def loo xam boo tëddee di nga nelaw waaye di def loo xamul di wax loo xamul nooy nelawee doo mën a nelaw kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax yàlla nee na wala tamshi fil ardi maraha allahu akbar innaka lan taxriqa al arda walan tablughal jibala tula mbokk gis nga kon yalla subhanahu wa taala neena jarul ngay ngand ngandul jarul ngay dox di reey rëylu ci kaw suuf parce que amul ben sens waxuñu koo xamante ne nii moom tabiiyan bi maana ni ko yalla binde ni muy doxé buy dox day waxu am nañu non lañu yalla yàlla binde bu dox dañuy waxu am nañu buy dox ndank lañu dox yalla fi limuy muy Moy ñi dox ci kaw suuf di reey lu di ngand lu ñooñu lay waxal ni leen ngeen dal ta xamni ni leen dox dox dox ba xar suuf si mëno leen reey reey rëy rëylu ba romb montagne yi te bu ngeen deewé suuf la ñu xar dugal leen ci waaw kon loolu lañ ci bayyi xel yalla nak daal di jéxal li nga xamanteni ni mom moy mooy daal ni kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha allah akbar yàlla nee na yii ma fi lim lépp kullu zalik yii ma fi lim yépp rey say doom faat ba kenn njaaloo lekk alalu jirim lekk ah, alal joo moomul walla fecci kóllëre walla ngay jaay di ca sàcc walla ngay dox ci kaw suuf di rëy rëylu walla nga nay walla ngay yàq walla nga ñàkk fonk say ñaari waajur walla ngay bokkaale yàlla nee na yooyee yépp yépp yépp na ngeen xam ni man yàlla dama koo bañ dama ko sib kon na ngeen ko moytu mbokk yi nañ delluwaat ci alquranul karim nañ dellu ci alquran inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam yàlla neen alquran ji day defar il faut ñu delluwaat ci téere yàlla bi subhanahu wa taala loolu rek moom moo ñu mën a indil li nga xamante ne nii moom mooy résultat bu baax yàlla nee na yonent bi zalika مما أوحى إليك ربك من الحكمة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة يلا نينا يرنتي بنك آية يما لجوخ دين كان ييغا خامتيني ني مو في نيك بوكو نتي حكمه ييغا خامتيني ني مان مالاكو باخ غا باخ كو ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ها لا لا تك ولا تجعل مع الله الها اخر fatulqa fi jahannama maluman madhura allahu akbar Yalla neena yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bul wutal yalla ndend mukk ndax bis boko defé rek dinañ la tabal bir jahannam ba paré nga resté fa ñu lay yedd dila la ba paré dila sori li nga xamanteni ne nii moom subhanahu wa taala kon mbokk yi su ngeen yalla bu mi commencé ci aaya yi ci suratul isra bokale lako commencé wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wal walidayni ihsana bo xolé affaire wéetal yalla moom la ko wat nga xamni ñom ñaar yoy ñoo ndar kep jikko yi moy ikhlas moy selal moy fexe ba def nga def ko ta yalla subhanahu wa taala rek tax motax sar wi nga gis ni yalla fe wa qad rabbuka allah ta'budu illa iya nga gis bi mu demé ba salam mu daan ne yonent bi alayhi wasallam bul wutal yalla ndend kon nga xamni lolu kasse mom mo fi nek kon mbokk yi sar wi du sotul isra yi da fay defar jikko fay defar société da fay defar li nga xamanteni mom moy kër yi kon nañ ko jangat niñ ko jëlee ci suratul an'am jël ko suratul ra'd non la nek ci suratul isra insha allah tabaarak wa taala suñu dars yi di ñew suñu xalaqaat yii di ñëw dinañ ñëwaat ak yéen ci yeneen saar ci yeneen aaya yoo xamante ne ni yàlla subhaanahu wa taala moo ñu ko baax ci alquran yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla subhaanahu wa taala lépp lu fi dëng nañ xam ne ci ñun la doomu aadama matul ni muy waxee noonu lay juume kon lu ci juum rek nañ xam ne ci ñun la ak ad dahru yanqusu taaratan wa yatuulu wal mar'u yasmutu taaratan wa yaquulu والقول مختلف إذا حصلته بعض يرد وبعضه مقبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته